yëmu ci wax ne lii aw si li lesi uridu wan faxe bi yan wara yow ma xam ne am mission mboolem loo fa liggéey kat jëgleewu ma ko kenn ku dul xeetu rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ak sama waxit na ijaal rujuuxi ila qawmi saadatana wa takshina yowma jamahi xalfi nirana kon Dakar am na ci place bu yaatoo yaatu ndax bi muy dem fere jaar te bu demutoon du ëndaale ndam di ko am waaye bi ñu gisee te fi la jëkk wàcc noonu nag da ko ñi ko fi wuutu ñëpp tam da ci Cheikh Mouhamadou Moustapha xam ngeen ne këb di foos gi moo ko moomoon daa fi ñëw teel bii di ko fekk Cheikh Mouhamadou Fadil itam noonu ko la defee lii sëriñ bi def nag dañuy fàttali Cheikh Abdoul Ahad Mbacké nganam gure gi nga xam ne la mu àndaloon ci oto daanaka mën na téeméeri oto ñëw fi gana si ataaj bi kii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 ba ak Cheikh Sidou Moussa ñëw ni mu daa def am jot mu tànn ay nit di leen yóbbu Makka saa su ma sànn accident yi yëkkati ay béy yu bari barkeeloo ko ci biir ñooñu mu daa yóbbu Makka ñëw siyaare si ko ànd ko ba yàlla def moom mii nag mu toog fi di Serigne Touba liggéeyal nag ba làq ngir moom di doomi Serigne Touba kenn ku ci wax nga ko loo xam ne buñ ko tàmbalee du ko nekk li fii ba guddi fi la ñu fanaan kenn ku ci ne laq ngërëm mu gënoon laa doy ci si jëmm gënoon laa doy ci lépp looy mos a la cee firnde it mooy Serigne Saliou bi ñuy njëkkee teg ji ca pàkk bu njëkk ba Serigne Mbacké mii la wax ne ko boo demee ci Cheikh yabal naa Cheikh Mawal mu taxaw kon buñ àggee ci bis mu ñëw teg xeer la kon nag la Cheikh Mawal Fadi daa wax ne. maa am taw féexe teg xeer bi jëkk ci jumaa ji waaye maa am taw teg xeer bi jumaa ji kon moom bi itam amaan na taw xeer wa njëkk ci jumaa Massalikul Jinaan moo ko teg waaye yàlla def na liggéey bi sotte waa ci biir nekkam Sëriñ Tuubaa kon yàlla yàgg lool muy jëmm joo xam ne rek ñëpp ko xam waaye fàttali dafa baax amul benn bëgg-bëgg soxlawul dara loolu sëñ Tuubaa kilifaam gu tedd ga Cheikh Mouhamadou Bassir mas na ko wax ne ko man de li ma jaaxal mooy mun taxaare moom daa mel ne bëggu dara ma ne ko la bëgg day jafe la ma bëggoon nag mooy lii rek te mooy xett li bëgg ñëpp texe bëgg ñëpp gindiku bëgg ñëpp am taalibe te Sëriñ Tuubaa nongu na ko ويؤثرون على أنفسهم ولو كانوا mboolem ñu bokk ci waa kenn ku ci ne sëriñ bi ne ci kaw suuf moo di ñaan yow nga indi loolu suñu doon waxoon ne wa min saadati lfata xaytu xasat an laa yurdahu fa abshir rasad loolu moo ko def moo ko may li mu am mooy xol yëpp marché ci jublu ko xol yëpp marché nongu ko ndax kat li ko gën a may Sëriñ Tuubaa daa wax ne na ngeen xool bu baax fi ngeen di def alali taalibe bi ndax nit foo def fu fu fu alalam dugg ak jëm fa moom na yàlla def def léppam da koy jëmale ci Sëñ Tuubaa léppam da koy jëmale ci borom moo tax ñëpp maas ju nombal ko amul dara lu bëgg amul dara luy bëgg lu weesu bëgg ñëpp defaru bëgg ñëpp taxe kon yàlla def mu jëkkoon fii ñëw ñëw bu jëkke doon ubbi jumaa ji loola doonoon lu wax ndawul yoon wu ndawul lislaam lay wax ndax Serigne Touba kenn biram xattalu ko woon yëpp la ci daa dugal jullit yëpp ci bégg ko ba kenn ku ci ne jàpp ne yaa ci gën a yeesoon ba yoon bii nag mu ñëw di bëgg nit ñi barkeelu ci moom ci waa Ndakaaru ci jiital Serigne Mbacké Faye mi nga xam ne moo ne ci seen kanam Serigne may leen ñetti fan. yoo xam ne day ñëw ànd ak ñoom julli ajjuma toog ci kër Sëñ Tuubaa ji dundal barab bi ñëpp ñëw fi ngir xaj ngir xam ne wala chumaahi la xuma bi jooje Sëriñ Tuubaa waxoon ci Rasulullah xar kanam bi ko séen rek dana far seen yàq bi yéemu naa lool ci pëseefu taalib bi démb am na taalib bi bu fi ñëw ñu ngi tudd alxaaji yàlla bii alxaaji yàlla di man sama suma ko gis yëkkati ñaari million wax ne damaa dégg nganu sëriñ bi ma jaay sama oto ñëw daa bëgg ma tàbbi ci kon posture fu nit ñi kenn loolu lépp nag fi mu ne rek ko ko may bi yi ma yóbbante ci ganam gii tam ndax sëriñ bee ko jël def ko doom taalibe gi moom moo ko waxal boppam xarit soppi gi ko xam sëriñ bi ku ne xam nga cofeel gi mu am ci moom gi àgg na foo xam ne boo ko doon natt xawu fu muy tàmbalee xawu fu yem kon sa diggam ak sëriñ bi adduna sépp xam nañ ko da sëriñ Abdou Lahad doon waxee lu ne fàng diisu ko man ko diggante ñëpp xam nañ ni mu waaye lu ko ñëpp di xam nag li ma ci xam ci seere kenn xamu ko ci ndax yàlla def na sëriñ bi doxale ma sama digg di ma yónni ci moom kon li ma wax léegi ci biir naa ko jot di jullit yëpp xam ko rawatina taalibe sëriñ Tuubaa yi rawatina ñu bokk sëriñ Tuubaa loola mooy cant bu ko sant bu ko sant ak ngërëm bu ko gërëm ndax la ma waxoon ne jàppale na ko ci liggéey bi ci li mënta ñàkk muy ma nee na loola dara sut kooku ci la koy ñeene itam mi lay xamal ne la na sam xel dal te sañ wax waxet nee na lam la waxoon rek dara sëppu ko ci mooy ñëpp a fi jug ñëpp jug di sàkku mu ne moom am na loo xam ne bu ko defee day mel ni abooru lay doon ndax ñaan gi sañu ko ndax mënta ñaanal ci bàyyi ci ndax li ñuy wut te leen la mu ne yow nag yàlla dafa def sa digg moom àgg foo xam ne xamutu nen lu muy def moo tax mu jéego jéego muy tàddee dem ba ci barabu Sëriñ Tuubaa jàkkaarloog sëriñ bi dénk la ko nee na dénkaan la mu la ko dénkoon nag nee na ñu ngi koy feddliwaat nee na sam xel ci xam ne dara supp koo ci moom lu weesu lu yokk loolu nag la ko ko may sa jëf la ndax xam na ne moom amul soxla boppam ndax moom mi mën na ci seen ba mu toog na fee moom xëy na ren la fi am fukki at ba mu nekkee wu Serigne Touba mos a dégg soxla bi mu nekkee Serigne Touba it mos a dégg soxla lu mu koy wax rek soxla si taalibe yi ak soxla si bindee tax nag mu am weer te ñoom ci moom ci soxla nit ñi loola nag lépp lu ci dégg danaa ci def ba def ci lu ngeen nee na loola nag kon mënu laa fay dara lu may sant la ak gërëm la ak lam la waxoon ne bu njëkk danaa dénkoon sëriñ bi di fekk di dénkaan na waaye bi nga bi la yàlla falaate nag nee na mu tàmbali ñaan nee na ñaan koo gën la ci jiitu mooy suñ borom dëgëral la kàttan la la may la wér ba li nga bëggee yéene liggéey ci liggéey yéene ci liggéey ci réew mi lépp loolu la koy may rek nee na ñu ñaan ci barke suñ Tuubaa suñ borom dimbale la ci ba nga ko bëgg nga amee ko loolu xam ne am na ci sa digg nee na cant gi ak ngërëm bi ñu ko seeral da nga wóor Sëriñ Tuubaa gépp ndax xam na ne loo ko defal jëm Sëriñ Tuubaa tax mu def ko ñu seqal nag kon war nañoo xam ne fii la si liggéey moom dara dara luy moom lënt lënt wala ñu ñu na ko yees leen loo xam yaa ngi ciy dugg te waxtaan wi ci mu amul te lépp lu la ca sant itam lu metti metti itam boo xam ne ak nga ci ne ko lu ma ci mën a fekkee rek naa ko def ngir loolu lépp na na nga xam ne fàtte ko ndax askor loo ko defal ko li may jeexale rek mooy li si wutu mooy Touba ñëpp xam ne daaw mbënd mu méttee fa amoon ba ñëpp xam nañ ne dem mu doole ko wàccee nab bi dem ba tam li gën a sori bay génn ci armée ay ak li gën a jege jumaa ji ëpp juróom benn weer sëriñ bi wax ak yow ci téléphone yónnee ma fa ceew wala ko waxee fa sensé nga jël ci ak dogu ne farata la nu mu gën a gaawee danañ ko def joxe ci ay mu toll ci ñaar fukki milliards ak ñett lu bokk sa liggéey yéen koy def ne yoo xam ne tàmbali nañ ko lu ëpp ñeenti fan wala juróom fan loolu itam sëriñ bi nag ñu ngi la ci cant ndax bi mu la koy wax kat neewoon na la liggéey bi kat mooy li a farata lépp nee na loolu nag lépp Sëriñ Tuubaa ko defal kon nag Sëriñ Tuubaa bi nga xam ne waxoon nañ ne andaman waa salani laa li aradin dunyawi fa innahu yakunu min al-muqarrabin képp koo xam ne ñëw nga ci man te dara yi àdduna taxul a jóg suñ borom daan la boole ci yow gën a jege képp koo xam ne an na man waasale li dunya faqat inna allaha yukallimu man yashaa képp koo xam ne nag ñëw nga ci man te àdduna yi kese taxul a jóg suñ borom daan la teral sa jër dund kon nag na fàttali na ko bu yëgul na nga xam ne jëf leen tool kenn ci dëkk ba ku suñ Tuubaa Sëñ Tuubaa rek ngay jëflanteel nee na Sëñ Tuubaa bi ngay jëflanteel rek nee na li fi yaa ngi ne foofu na lu wóor a bi lépp loo ko jëfee rek pay gaa ngi sa kanam. asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. jërëjëf Mbacke wax ji rafet na lool am na solo de jërëjëf Mbacke jërëjëf Mbacke. 57 36. am na tuuti lu sëñ bi leeral dafa am tuuti lu Cheikh Modou Bassir bëgg a leeralaat bi am tuuti lu sëñ bi sama Modou Bassir bëggoon na leeral rek ci kanam sëriñ bi ak président ñu dégluwaat ko suñu borom di wax wala xad ahidna ila adama fa nasiya loolu rek moom dal daa am tuuti lu ma fàtte tey lu ma ñor lool loo xam ne sëriñ bi waxoon na war ko fàttali mooy li ci xew ci réew mi di ay bakkat bari yu lu ma fukki nit ak benn lo xam ngeen ne musiba mu rëy la mu wàcc ci réew mi kon président Serigne bi nee ñu ngi la koy jaale di ñaan itam loolu jeex ci réew mi suñ ko bañ a fee bañ a jëfee teg fitna ju toll noonu waaye ñu xam ne nag natt moom ak jullit ko tax a foo déggam nattoo yéefar tax ko jóg yéefar mbugal mbugal la moom ci biir loolu nag sëriñ bi nee na ñu ngi jël am njaal ak siyaare ñu ko. Serigne Babacar Sy Mansour mi nga xam ne mooy kilifa ga di ko teg ci loxoom moom ak mboolem ay rakkam ak i doomam ak njaboot bi yëpp di ko ko siyaare ci biir loolu sax Serigne bi yónni na doomam Serigne maam Thierno suba incha allah tey sax dañ waroon dem waaye moom mu yónneen fa délégation ñu ñëw ngir siyaare ci sëñ bi waaye suba jàmm incha allah. sëriñ sëriñ bi na leen ñu dem masawu njaboot masawu sëriñ bi masawu ñu ngi ko seqal di itam ci nawet bii njub suñ borom def ci barke ndax xam na ne fii adduna si toll kii si metti na te lii ëpp ci lu ñuy jëfandikoo bitim réew bi jóge te loolu itam xam nañ ne gis na ci ngóor bi ndax mi ngi koy jéem a yanu ngir bañ mu ñett ci nit ñi kon nag loolu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 lépp ci Sénégal ay béykat lañ kon boo leen dimbalee dimbale gi ñëpp kon loolu sëriñ bi nee na ñu ngi la ci sant di la ci gërëm ci li ci def waaye di la ci ñaax itam loo ko gën a mën a dolli waaye itam nga dolli ko ngir fii adduna si toll wane na ne mbay mooy li war a jiitu yëpp asalaamaaleykum wa rahmatulah. jërëjëf wax na ñu tàllal président waaw waaw ci sëriñ bi. sëñ Isaaxa ñëw na. amin amin Mbacke yàlla na yàgg ñëw ci yow ma dikkee dégg nga li président wax de taalibay Ndakaaru yëpp sëñ bi sant na leen taxawaay bi rafet na lool ci wetu jëwriñ mbokk yu fay gis naa gis naa gis naa boo ma waxee rek ma dem bul gudd ñu may yoon ñu may yoon mu ànd ak moom te te ñëpp toog fii te ñu toog fii nag te ñu toog fii may ko gisee xew bi te ñu toog fii na ñëpp ñëw may ko sëriñ bi. waaw ñu may ko ñu may ko rek nañ ko xaar mu dem ci sëriñ bi. nañ ko xaar fii. ah yaa ngi ko ah Mbacke Mbacke. li gën a garaaw fii fii moo tane woon ci yéen. asamba fii moo tane woon ci yéen. fii moo gën a xam direct. ana président daa dem. dem na.